yéen waa 28 pro ak àdduna wërngal këpp ñu ñuy seetaan tey ñoo ngi fii ak sunu champion bi di doomu Mbàkke muy waajal combat bu rëy boobu ci Diourbel di wax ne na ko ñëpp jàppale yàlla na ko yàlla may ndam ci barke maam Sere Fall ndaxte am na jom am na ngor bëgg na Mbàkke bëgg na dëkk bi ne waa Mbàkke gépp jóg autorité yëpp génn jàppale ko te yàlla rek tax yàlla may ko ndam ndax jàmbaar amul ku ndimbalee am tey it nag koo fi gis mu dem dañ koo jàppale te ñan ñoo lay jàppale bay sa wewu tànk muy sa waa dëkk sa waa gox sa waa kër sa waa say bokk ndaxte nit ki mën ëpp la say bokk waaye mënoo ëpp say bokk waaye bokk yu nekk mbokkam la am na ñëpp ñëw jàppale ko Saala Ndiaye ngi noonu Saala kaay fii yaa may dégg Sidi Jaxate bay daan ak waa 28 pro kontaan nañ ci yéen ni ngeen taxawee doomu Mbàkke yàlla na yàlla def jàmm allahumma amiin maa ngi leen di ziar gis nga ko de waaw ñu ngi ci waajtaay bi dernier réglage yi moo des. di waaw comme dab rek na nan ci ni ko war a defee pare nañ ci lépp daal li ci des nag mooy suñ borom moo yor ndam yàlla nañu may ndam insha allahu rabbi loolu rek la ñuy ñaan yàlla. ci koñ bi mobilisation demee. non koñ bi moom mënoo mënoo xam gis nga ko ni ñu ko gisee nii depuis bërki dem ba nëgëni kër gi noonu la mel. nit ñi su ko génn doomu Mbàkke nag vraiment moom moo mel noonu. ndax ku xam pap ak ni mu mel ak waa koñam xam ne moom bis bi bisam la daal wax dëgg yàlla ndam rek ñi ngi koy ñaan yàlla suñ borom may ñu ndam te jàpp naa ne te am naa yaakaar ne moom suñ borom dinañ may ndam ci kàttanu yàlla bu soobee yàlla ok kii moo njëkk a bëri ba xaarim sàmm yi ma chauffeur bi waaw man maay sama euh, fas yéene nga yóbbu sa mbër tey euh, ci maanaam euh, Diourbel noo jubee yoon bi en tant que chauffeur pression lay doon wala boog confiance non confiance lay doon parce que ñun giri duñ ko yóbbu mukk di dund pression parce que xam nañ suñ mbër te gor la garmi la te lim ñu tàmmal mooy mooy dem ndaan ñibbi te moom moo moo buubu caski moom dem jël ndam li indiwaat la ko xamante nañ bu baax a baax ndax buubu ñëma wutoon giri kon bu demee ba jël ko rek am na lu lu mu xalaat mais lam xalaat nag moo koy rey tey ji incha allah rabbi danañ am ndam ci kawam bu soobee yàlla Euh, maa ngi ak maa ngi dafa mel ne yaa ngi joxe seen direct xam ne moom waaw ñu ngi leen di siyaar baax di nuyu gaa yëpp di leen xamal ne Giri moom dama koy wax sama doom la sama xarit la sama jarbaat la bu xewlee te dafa mel ne man maa xew xewle dafa mel ne man maay bëree barke alxuraanu karim dafa mel ne sama doom mooy bëree di ko wax rek ki muy bëreel mag la ku xam làmb la na tey naxanteeg moom daan ko làmb du risque calcul la loolu rek laa ko conseillé na ko yow tollu too fu ñu lay conseillé ci làmb di la wax defal lii bàyyi bàyyi li bëri bëri ngaa ku ne daan nga ku ne fekk nañ la fu ne te daan nga ñoo xamante ne ñëpp buubu caski lépp kon yow li ma wax mooy liiral sa combat calcul nag moom nax ko ba daan ko loolu rek la du leneen loo internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen uh, jaajëfal ki ngeen xam ne moom mooy uh, doomu Mbàkke di Gris moom mooy waaj a génn noonu gis ngeen donc ñu ngi uh, gannaaw yi bu ñu defee nag. bi nu bi nu seetee ñenn ci ay euh, entourage am euh, ñu ngi doon xaar ki nga xam ne moom mooy mbër mu génn si léegi nii euh, léegi nag mi ngi waaj génn nii sama gaay ak nii ñoom gisa ñoom Boy Niang ñoom ñëpp ah, ñoom ñaa ñoom ñëpp ñu ngi doon taxaw kon donc ah, gis ngeen waaw ñoom soppe waaw Pape Bombe ak soppe ñoom ñaar ñu ngi doon gis nga. aynu aynu aynu lépp pare na aynu. waaw waaw lépp pare lépp say ndam rek. Uh-huh. Sidi dañ koy jëli de day dem ñëw ci kàttanu suñu borom waaw yar waaw sa rek inshallah rabbi so pegal sa ngi ni waaye nag kii mooy père mu jàpp dëgg la heure bu gërin dafay gàmbi rek ci kii la nekk ndam rek inshallah rabbi ndam rek inshallah waaw pare nañ ci lépp defoon nañ def nañ ñu war a def lépp waaw suñ borom moo si def wane fula ak fayda fayeeku moo si des waaw li ñu a def def nañ ko ba waaw ah, père ñu ngi lay ziar. waaw jaajëf jaajëf. daa mel ni yaa ngi yow yekk nga de. waaw pare nañu insuñu tool yi dañuy dem SR incha allah di ñaan suñu borom suñu borom may ndam ndax li ñu war a liggéey yëpp wax dëgg yàlla liggéey nañ ko teg nañ ci ak teg nañ ci yoon depuis combat ba léegi dañuy daal mag yi daal naan ak daal ànd ak tey incha allah rabbi su neexee yàlla suñu lu ñu liggéey suñu jàppee buubu cas mu jeex sooy borom. jërëjëf jaajëf. gis ngeen doomu Mbàkke ngi noonu doomu Mbàkke ngi noonu doomu Mbàkke ngi noonu mi ngi ànd ak uh, waajuram ndeysaan ndox doomu mbakee ngi nii ànd ak doomu dem ànd ak ki nga xam moom mooy Abdoulaye Seck di perte moom mi ngi noonu première bouteille bu mu sottee koo ngi noonu première bouteille ngi sottee koo ngi noonu waaw gis ngeen kon gis ngeen kon pare na doomu Mbàkke ngi noonu di génn à 16 16 heures la génn gis ngeen gis ngeen mbër du moom rek am na ñu koy dar lu gis ngeen yooyu yëpp ay tegtal la waaw ah mbokk yi yéen ñi topp 28 pro genou gauche la teg noonu ndeysaan gaa yëpp gis nga yaay jaa nga ne ci gannaaw laat may ma image yu laat waaw amin amin amin amin amin amin amin amin na la sa barke baay wallu yàlla na la yàlla ak Serigne Touba Serigne Fallou yàlla na nga dem ci baa dikk ci siin Pape Diouf yàlla na nga andi ndam ne yàlla na nu yàlla rus yàlla na la yàlla sàmm yàlla na la yàlla sàmm Diouf seral nga sama xol yàlla na la yàlla sàmm ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan

Toré daal ñibbi yaay di ko tàmbal Toré daal